instant bii nag xaw ma ñoom ñaar boo ma ci jox baax na Jacques dama lay laaj yow ay ay ay ndénkaane des fois nga yeexal ndénkaane yi ndénkaane bu ma la ko laajee jox ma ko automatiquement parce que tey aw ma lu may maye. oui. <laughs> teel ko ana Pierre ana Pierre ay waay <laughs> non faayda du dem de taxawal corona bi jeex na sëñ Muntaxa génn na lépp Sénégal barke yonent bi waa mais liggéeyal ba waxoon li li li li li jànji laa bu suufa ni wi am àddunaay bëgg a tukki man lii lan la lii ngeen ma def Pape lan la Pape Ousmane de moo fi jaar ndeysaan ay dara la oui sama ndey yaayu. Pa Ousmane Pa Ousmane tey laa lay musa wax nag li taxoon ma doon teg fii faay dara ma wax la ko tey. Pa man man damay romb ci mbedd yi nit ñi wax ni Thiamas man danga ma neex je t'estime du mon de mon cœur. Mm-hmm. faay dara ci télévision laa jàkkaar lool xoolal télé bi boo laajee sama fans yi ni Thiamas ku mu gëm dañ naan la Serigne Fallou la gëm. sama maa ngi waat ci barke Serigne fallu bëgg naa la te gisuma sa jëmm ji ñëw fii animateur laa nag il m'arrive parfois mu dugal say TikTok fii ci tele bi nit ñi xam nañ li ma wax parce que dama laa bëgg te yàlla kese kese kese tax Faa Aidara yàlla na la yàlla fal cat waaye sa yi nga ma dina ma xaw tuuti tuuti xoolal ba may def lu neex ba léegi tey nga ma musa bettee lu ma neex barke yonent bi laa la wax ndeysaan Faye Dara yow la àdduna di wër ay waay man yow lay wër yow nga jóg ñëw non pas lu tax woo ma téléphone service <laughs> <laughs> laal bëggoon defaral Pa Ousmane keroog lañ gisante matul sax semaine mu toog mënuma caamas dalaa bëgg barke yonent bi chaque jour day dugal say vidéo barke yonent bi dalaa bëgg bay bëgg a dee man comme que nag daf maa bëgg aw ma fayam dama koy defaral surprise ma ñëw si émission le premier man ko kañ la mënuma lundi mhm. euh, je pense si semaine bi lundi jeudi mardi ba mercredi ah léegi nag je comprends lu tax démb yàlla rek ma tiim barke alxuraan demb damaa woo Pa Ousmane téléphone ma ko Pa Ousmane Jacques yaa may dégg ma leen suba émission du am lu tax parce que je suis trop fatigué dama def ay prestations ci euh, ci euh, élection yi quoi investiture yi maa ngi doon a comprendre ndax Pa Ousmane naa ma bu fekkente ni sama diggante yow dëgg la da ngaa war a ñëw liggéey ma pesé après j'ai pas compris man ko non on va travailler ensemble Pa Ousmane ndekete yow lii ma. boobu lii la naroon nag Pa Ousmane. waxuma ko ma ne ko du ma sax xaar muy yàgg. Pa Ousmane xoolal xale bii am na foo xam ni xam na fa moom ku bëgg lakk jën fa ngay ànd ak moom <laughs> barki yonent bi loolu xam naa ko ci moom tey ñooy añeendoo lakk jën <laughs> barki yonent bi Sénégal. xale bi dama ko bëgg te yàlla rek tax. bilaay maa la raw man tamit depuis may nekk xale. Ah. dama la doon seetaan say émission kon léegi mag nga daal. waaw léegi dama. <laughs> mos naa ma lay seetaan. ma ni Pa Ousmane munoo munoo lijjanti numéro Faye dara nga laaj ko ndax moom est-ce que maamam yaru ko wala parce que yorul lenn ku yaay yar. <laughs> pourtant dëgg la nag sama maam moo ma yar maa ngi koy nuyu sax. sa diggante yàlla ah? waaw moo yar. Pa Ousmane naa bàyyi métier bi quoi. <laughs> non ma non naa bàyyi métier bi xam naa ba non non non non kii Passemal yaayam sax mi ngi seetaan xam ni caamaas dafa bëgg doomam barke Seydina Mohamed yow xoolal dara du la catu pa faay dara fi nga jëm dafa di grenier bu bari la ca nekk te mënoo koo jeexal te loo ci coppati saf àdduna bi loo ci coppati xamal ni saf nga àdduna bi te am na ku ni ma waaye ki xale bii ni mu rafetee ku ko bàyyi day màndi <laughs> ma ne ko du mandi yaay booy kii xamul leen ni mandi kii day muuru sax kii xamul mandi interprétation la nga liggéey mhm. fayi dara xamul ma bëggoon mm. Passeman comme na ngay jaay affaire yu jinne may ma ay tiktok yi faa dara le temps que man mat installé ko ci chaise bi jeex na eh, eh Jacques réew mi toll ma ki xamal li nga yokk yokk nga fer ciment yokk nga suuk yokk nga diw yokk nga mburu ma ki xamal li nga yokk ma ci kaamu wax la li ngay yokk non bul yokk meew bul yokk ceeb yokkal école yeeg tali yi hôpital yeeg emploi yi ma ci lii nga war a yokk fi réew mi toll ma ci xoolal li ngay yokk fi réew mi toll ma ci xoolal li ngay yokk fi réew mi toll ñëpp jàpp bopp sama xol bi sedd tànk dëkk baa ngi métti ak fi réew mi toll ñëpp jaaxle lool sama xol bi sedd tànk dëkk baa ngi puissant dafa métti wi dafa triste dafa métti dëkk wi dafa triste dafa métti dëkk wi dafa triste dafa métti dëkk wi dafa triste ni prof yaa ngi doxaan élèves yi wax góor góor ngi sëy waaye lool du ngeen ci wax waajur leen ngi tëddee seeni doom du ngeen ci wax jigéen ak jigéen di sëy lool du ngeen ci wax nit ci kaso bi deful dara lool du ngeen ci wax nekk hôpital amoo loo fa jox du ngeen ci wax Papa Dia c'est Tukulóor mën nañ ko raas pourtant yéen a ngi seetaan ah Daba Sène mi ngi seetaan Daba seen moom carrément ay waxam ñëpp ko dégg Daba Sène nee na ma caamaas yow kii nga bëgg nii muy faay dara maa la ko gën bëgg ba pare ni ma caamaas jël ko troisième nan laa koy jëlee troisième femme kii am carrière doo ko baa mu jeexal <laughs> waaye ilaa mu muñal ma ko toog ci carrière bi deux ans après ma ñëw yónnee seen kër mais faay dara. dama lay bàyyi nga nuyu àdduna bi ba pare lu may laaj door koo laaj. xam naa tey laa laaj ba mu mën di génn sama génn <laughs> kon baax na xaaral ma nuyoo. ok asalaamaaleykum waa Sénégal. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. Sénégal région yëpp. fucc bi waaw. diaspora bi tamit ndax am na ñu may suivre ñu nekk si diaspora bi France mhm. Italie fépp Amérique. Mhm. maa leen di nuy yéen ñëpp di nuyu sama fans yi nga xam te ne aw ma seen fay. chaque jour ñoo ngi aimé vidéo yi di partage di commenter. yéen ñëpp yal na leen yàlla fay seen xol ndax bëgg dafa metti di nuyu tamit sama famille di nuyu sama maam. nga xam di nuyu samay xarit. di ah. nuyu ñëpp di la nuyu yow Thiamas nga xam da nga maa bëgg ba invité ma nii. ma non man kay invité wu ma <laughs> kay yow kay da ngaa taañaañal yow man sa diggante ak yàlla Fadel man yor naa sa numéro. déedéet mus naa laa woo. déedéet non télévision lañ nekk. dëgg dëgg. Euh, ñii seetaan tamit daawoo toog sa kër ba si yàgg nit woo la wala wala nga gis nga ni Thiamas da day teg sa TikTok yi. si mos nañ la ko wax. dama si dal yenn saa su ma xëyee ni balaa may liggéey su ma xëyee ay dix heures wala onze heures ma gis ñu ngay teg samay vidéo ma naan sama yaay caamaas moom nga xam te ni ma ko yàggee bëgg. moom dafay teg sama vidéo yi rek raw mais xam nga. je pense télé yëpp ay ñoom DJ Kheucha ñoom tamit ñu teg samay. vidéo waaw Kheucha léegi nag keroog ma koy saluer au passage. waaw keroog nag. mu mhm. tasante kii Pa Ousmane. Mhm. te tasante bu gàtt mu ñëw ba si man ndeysaan nuyu ma. après munu man de lenn rek laa lay ñaan mooy nga ñëw si caamaas parce que moom daf laa bëgg. Mhm. ma ne ko si si parce que damay gis mu def samay vidéo ci mhm. télé bi. Mhm. man ko léegi bu ko wax dara bàyyi ko rek man dina ko defaral surprise la def. <laughs> man ko dinaa ko defaral surprise. comme ça du sax nekk di xaar lundi rek lundi bi njëkk si semaine bi. ma ñëw. ba pare après ma soog def. yii dal na de surprise bi de dal na dal na dal na bu baax ba ma yëg ko waaye du tey euh, loo ma bett bett dama naan damay profité wu ci occasion bi <laughs> parce que doon naa teg say vidéo mhm. li taxoon nag tey laa koy wax sénégalais yi nga yi nga xamaale ko euh, dama gis tey ci internet bi. Mhm. benn module boo xam ni tey jeunesse bi ñu ngi ciy taxaw. Mhm. donc euh, feeñukaay la miroir la. miroir boobu euh, bari na nag mais man maa la tànn ci biir ñooñu. Mhm. Euh, par rapport ak li ngay véhiculer. Mhm. da ngay gis son lu mu gudd gudd lu ndaw nga ciy coppati. Mhm. mais lu ndaw loolu am na foo xam ne dafay àgg doomu aadama yi. du ma ne ku dul sangu amut. dëgg mais yàlla dafa tudd ni internet bu demee ba am. ci biir TikTok. dina am benn chef d'état major des tiktokeuses bu <laughs> tudd fa ah, fa ay dara dina am lu mu ciy wone man na question bi ma yàgg di poser li tax ma lay teg mooy. message nga ci jublu wa ilaa da nga koo fowee ba mu far doon carrière ci yow. <laughs> waaw comme ni ma ko yàgg waxee rek. TikTok bi moom foo laa ko laa si jublu woon. non dëgg du deñ <laughs> mais <laughs> sama premier vidéo TikTok sax dafa kaa def ba pare ba supprimer woon application bi ndax boobu maa amee woon iPhone 5 xaw ma. Uh-huh. léegi attanu woon application bi nag. dama doon gis TikTok gis TikTok nii rek mu woon nan lañ koy defee. benn jour nag sama benn copine maa ngi koy nuyu sax de passage moom la mer. Uh-huh. après ma wala ni ñuy defee TikTok. Uh-huh. léegi ma téléchargé application bi. après ma def première vidéo man ak moom ma fàtte ko nag. ma jéeg saa yi gis nag affaire yi nit yi di ko di ma ko envoyé waat di ko dugal statut. ma daal di téléchargé waat application bu gi dugg. Mhm. ma xool gis ma am view yu bari. Mhm. ma ni waa. Mhm. lii nii la mel. ma ne ah lii neex na de xaaral ma commencé def après maman di ma won ni ñuy defee maman maman mooy sa yaay. non sama xarit la. ok sa xarit sama xarit maman la tudd. léegi nag mu may won may def di def nag ba par la suite ma voyagé. je pense bi may commencé. TikTok octobre la woon. novembre décembre ma dem Maroc. Maroc ok bi ma demee nag. ma commencé def foofu ay vidéo nag ba période confinement parce que je pense. Mhm. Euh, corona bi ak mois d' avril la. Mhm. léegi nag mois boobu nag la affaire yi nag gën a def choc Sénégal nag. ok ndax boobu ñu nekkoon ci confinement. Mhm. corona bi may def ay vidéo ak nit ñi affaire yi commencé di def buzz. di commencé comme li ko gars yi di waxee di def buzz. waaw mais bi nga ci dooree ba nga gis ne affaire yi fi mu ne yow am nga nit ki li ko song. bu ko gëmee tuuti rek loolu day dem ba moom ko. nan la ko sa parents yi gisee. Ah, à cet âge gars yi faa ay dara fa ay dara faa ay dara faa ay dara <laughs> ñoom dañ la ci gën a pousse jàppale la ou bien dañu ignorer ni la nga bàyyi. non non non non non dëgg yàlla. sama hmm. tata yeeg sama hmm. yaay ñoom ñëpp. Hmm. ñoom yàgg nañoo xam ne am naa talent parce que kër ga laa doon nekk di toppandoo sama maam ni muy waxee. di toppandoo sama maam bu góor ni muy reetaanee. ne si kër ga maa nekkoon comédienne kër ga. ok léegi nag di bu ñuy añ ma nekk foofu di wax ñuy reetaan. dinaa ma yow war ngaa dem jouer théâtre ndax da ngaa saf xorom. ok ba par la suite bi ma gisee ma ne vidéo ñun ma ah continuer rek xëy na sa wërsëg fii la nekk. wala eh, bien sûr parlant de wërsëg sax ci laay wax parce que dafa am loo xam ni eh, bu xisee ni fàng rek nit mën na koo utal eh, structure. Mm-hmm. ah defar ko noo xam ne dina ci am as koom. Mm-hmm. est-ce que TikTok bi mu ngi lay jural koom tey. TikTok en tant que tel nag. Mm-hmm. application bi moom du fay fii. waaw ah, du fay du fay fii Afrique. non du fay. mais di nga am ay partenariat comme ay. Euh, entreprise yu mag yu nekk Sénégal. ok ay ndox. Mhm. boisson. Mhm. Nescafé. Mhm. ku la soxla rek dalay dalay contacter. ok après mu nekk comme sous forme de contrat. ngeen ngeen ma defalal ko pub. genre ma def video wala ma jël ay produit am dugal ko ci page bi. comme ça nit yi gis ko. Euh, leneen li mooy euh, est-ce que yow dooy toog ba si yàgg sa xel may la tey Sénégal ak nii ñu nekkee ci campagne bi. Hmm? coow laa ngi bari ñii di jaar gauche ñii di jaar droite am jóob indi njaay <laughs> damaa soxla ndakaaru kii naan la gënoo maa yey ci ndakaaru est-ce que sa xel demul ci benn son boo xam ne lu ndaw mu nga fa loo coppati eh, pour nga mën a nekk une régulatrice de la société est-ce que xalaatoo ni tey bu coow bari woon benn faa ay dara mun na def TikTok coow li yëpp jeex xalaatoo jëm foofu ci projet yi bien sûr maa si sax Euh, bi passé rek bi Sénégal yënguwee woon noonu rek. Mhm. defoon naa ay vidéo sensibiliser gars yi. ok gisoo ba sama vidéo bi ma mujjee def naan Macky xamal li ngay yokk bi tamit. Mhm. parce que ñi ngi naan dund bi dafa cher. Mhm. donc man je suis pour le peuple. Euh, agression bi tamit defoon naa vidéo bu Omar Pène. maa ngi def ay vidéo di sensibiliser wax dëgg yàlla su ma dégloo benn son rek mu leer ma ni son bi su ma ko defee. Mhm. dina méngóog lii li nit yi di di kaas wala dara dama koy def. ok donc yow day dem ma nga xamante ni tu es une tiktokeuse engagée. voilà engagée euh, lan ngay yóbbante ñi nga xam ni ñoom dañu jàpp tiktok ni lépp lu ñaaw wala saaga wala sol solin bu bon. Mhm. foofu lañ ko mën a jaaree alors que euh, ni ma gisee yow ngay defee. <laughs> du ma ni yow yaa leen gën de mais boo leen yóbbante nan lan war a defaraatee seen toogaay. ah di leen wax rek. TikTok moom dëgg fa neex yàlla moom du pour saaga. du pour def lu bon. waaw dañ fi application la pour dugg fa divertir. Mhm. def ay yëfu reetaan lu nit yi reetaan parce que Sénégal dafa bëri stress. Mhm. du coup. Mhm. man nit ñi may woo fa yaa yaa ngi dindi sama stress wala tey dama nekkoon fii dama feebar dama sànn sa vidéo bi dama jug wala tu as fait ma journée. dafay bëri nga yu bëri foofu. ma leen di wax rek nag Sénégal moom dafa bëri stress. Mhm. ñu leen mënul wàññi stress buñ leen yokkal stress. dëgg neexul nañ bàyyi saaga bi. Mhm. bàyyi yàq bi. Mhm. àdduna amul solo. bu ñu xoolee rek dee yi nu mu bariwee ñu war a xam ne àdduna du dara. du dara bien sûr nañ jàmm. ñu sekk jàmm ñun ñëpp. ñu xam ni ku nekk rek da nga am sa wàll. TikTok bi ñëpp ko moom. ku mu neex dugal. defal sa vidéo. bégal sa bopp bégal nit ñi. leneen li nag mooy Pa Ousmane Fadala dafa am fit barki yonent bi xale bii dafa am fit <laughs> parce que man xam naa ne du mandi mais dafa jaar ci bàyyi mandi bàyyil mandi mais dafa am lu ma lu ma frappé ci ci taxi yi. Mm-hmm. des fois ñu ne diw mandi rek la fi nekkee. alors que am na ku nekk ak soxnaam ëmbal keneen. wallaay lan moo la osé loo yooyu ba ngay wax yooyu ay prof yi ëmbal. Eh, yow mais Fadala yow da garaaw de. ak ñoo ah, xam ne dañu leen tëj ci kaso bi comme ça. donc yow TikTok bi dafa dem ba. yëfi kasaw-kasaw wala yu ñàkk fayda doo ko ci def da ci ciy def loo xam ni contenu bu am solo ba pare mu nekk message bu am solo parce que mhm. dëgg yi ma dégg ci mandi mhm. sax a ko gën mhm. wallaay wallaay ndeysaan te pourtant kii mandi la ñuy xas wallaay wallaay dëgg la de xam nga Sénégal ma xamuñu ku ku too ku fayu ku tooñ xamuñu ku tooñ ku fayu lañ xam <laughs> loolu la tamit xamuñu ndeysaan ku nekk nan daal xamoon mu ko mën a mais nañu bàyyi di juger nit ay mandi ay yeneen. Mhm. nañ ci bañ a nañ ci bañ a basé wu. di mhm. ci jugé nit ndax am na kuy mandi koo xamante ni ndeysaan mhm. xol bu rafet la yore. lu am bokk ko ak nit yi. am nga xam te ni màndiwul deful dara mi ngi jaamu yàlla mhm. te lu bon rek wala toroxal nit mhm. du lu neexul yàlla rek voilà rek mhm. lay def du coup bu ñu bu ñu basé aussi loo en plus son bi man daf ma neex d'abord right baxaaw nekk sama ton sama xarit baxaaw maa ngi lay ziar au passage ndax moom moo ma njëkk a présenté TFM <laughs> bi ma egsee TFM moom mooy la première personne bi ma njëkk a wone après Amina Poté ñëw euh, jàpp ci bu baax a baax ma leen di saluer au passage di kontaan